jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew mi FM quatre vingt dix sept point cinq ñu leen di nuyu bu baax dellu am mbégte dellu siwaat euh, ci seen euh, émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu quinze heures jotee jàpp seize heures ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diawa Diallo moo nekk ci wàllu machine bi. mbokk yi nag tey ñu invité Alassane Binta Samb. Euh, moom mu bokk ci mouvance euh, présidentielle di militer fi nga xam ne moom mooy euh, Louga jiite benn mouvement bu tudd idéal ci wolof maanaam liggan gën idéal nag li muy tekki mooy initiative pour le développement et l'émergence alternative de Louga Euh, mu bokk tamit ci coalition euh, républicaine euh, sàmm sunu réew moom la ñu invité tey ci rajo réew mi FM fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy actualité réew mi Alassane Binta Samb am nañu mbégte ci invitation bi nga xam ne wusi nga ko. Uh, Abdou ginnaaw bi ñu musloo ci seytaane sant yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu ci dalal bi ngeen ñu dalal bëgg ñu may opportunité vraiment ñu wax ci tolluwaayu réew mi ci pencum réew mi donc ñuy remercier waa groupe promo consulting yépp ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy def ci lu jëm ci wàllu média ak ci jëm ci xamal nit ñi ci li li xew ci dëkk bi xew ci réew mi xew ci àddina bi. Hmm. jërëjëf d'accord euh, Alassane. Euh, Binta euh, Samb yow euh, da nga jiite benn mouvement mhm. yaa ngi ci mouvance présidentielle yaa ngi ci coalition républicaine sàmm suñu réew mhm. idéal kañ ko ko taxawal Euh, idéal du ñun ñoo ko taxawal en fait ci expliquer rapidement ci jeunesse bi dañu am ay xarit yoo xam ne dañu nekkandoo ak ñoom bitim réew. Mhm. ñu am suñu gis-gis ci politique. ñu ne déet léegi nag dañ ko war a jëmbal ci terrain bi ñu daal di koy tuddee initiative pour le développement alternatif de localité mais ñu jël slash Louga slash Kaffrine slash euh, Kébémer ainsi de ah, suite. kon idéal c'est national idéal donc suñu xarit yooyu nag ku ci nekk am wàll woo xamante ni yaa ngi koy dox ci fi nga dëkkee. parce que dañu gëm ni politique développement la politique d'abord a la base c'est un investissement humain. nit ku nekk euh, président cër bi mu am loolu la ki nga xamante ni day bale cër boobu la am ci réew mi donc moo tax ñu ne ku ci nekk ci ñun li nga war a def mooy nga wàcc sa dëkk. joxe sa contribution sociale maanaam li américain di wax give back fay sa bor ci nguur gi nga xamante ni moo la may nga am jàmm am dal war a mën a xëy liggéey ak loolu yëpp nga def ko ci dal ñun ñu ne suñu responsabilité sociale boobu dañ koy mettre en valeur mais bu ñu koy mettre en valeur dañuy engagé wu politiquement parce que euh, moyen ak autorité bi politique yu joxe moom moo lay permettre nga mettre en œuvre sa vision loolu moo tax ñu wàcc ci dëkk yi def euh, ay activité man nag ma nekk coordonnateur national en même temps di militer Louga loolu moo tax ñuy gën a fésal Euh, idéal Louga parce que ñu ngi fay nekk di def ay jëf yoo xamante ni xëy na mën na am njeexital ci dundu waa Louga mais également bu ñu ko dupliquer à l'échelle nationale dina am njeexital ci Sénégal si Sénégal yëpp. mais est-ce que euh, am na coordination coordination nationale bi est-ce que ma ngi dox comme euh, idéal nee nga c'est c'est national. non coordination nationale bi mi ngi dox donc li koy doxal mooy que ni dañ ñu jox mandat ñun. ñi nekk coordonnateur bi euh, di jëflanteeg ñi nga xamante ni ñoom ñooy parti politique yi ñoom ñooy coalition yi ñoom ñooy entité même société civile yi nga xamante ni suñu jëf ak suñu wax xëy na méngoo na ak seen doxalin parce que liñ ci wuutu rek liñ ci jublu rek mooy fexe ba indi un mieux-être social pour le vécu des Sénégalais maanaam dundin bi ñuy dund mu am nu mu soppeekoo ci loolu nag la ñu gisee euh, waa coalition républicaine sàmm suñu réew li ñuy def doy vraiment ñu dem ci ànd ci ak ñoom jëflante ak ñoom ba tënk vraiment li nga xamante ni moom mooy suñu mémorandum euh, élaborer un plan d'action di ci dox pour vraiment jëmmal suñu gis-gis ak suñu yéene ci Sénégal. d'accord euh, Alassane euh, Binta euh, Samb nekk nga directeur tamit fan nga nekk fan lañ la yóbbu ba ci ban direction. Euh, le président son excellence le président Macky Sall mi ngi ma nommé directeur de la sensibilisation et du partenariat institutionnel au ministère de l'urbanisme depuis le juillet donc ñu nekk foofu ci suñu xam-xam te bi mu ñuy nommé boobu engagé wuñu woon politiquement engagé woon nañu mais euh, doonuñu woon def politique active à la base. donc bi ñu nekkee euh, directeur foofu tasanteeg suñu activité yi ñu doon def ci li ñu wax dans le cadre de la société civile de notre engagement social gars nañu non il faut ñu transposer ko ci vie politique bi ci la ñu duggee nag ne léegi ñun suñu responsabilité également mooy jëmmal ak fësal wane li nga xamante président Macky Sall mi ngi koy liggéey ci réew mi di ko liggéey ci Afrique di ko liggéey également ci àddina bi pour la rayonnement de notre pays. Euh, ban mébét nga am ci fi nga xam ne mooy Louga. non mébét bi ma am Louga mébét bu yomb la mooy képp koo xamante ni yaa ngi yeewoo ci sa dëkk bëgg ko am fa yéene mébét boobu ngay am mooy fexe ba Louga gën a feeñ. ci Sénégal gën a feeñ ci Afrique gën a feeñ ci àddina te loolu mën na nekk parce que nous avons un potentiel extraordinaire au niveau de luga d'abord la position géographique nous avons une position bu ñuy permettre ñu mën a polariser lu bëri parce que boo xoolee un peu euh, au nord am nañ am nañ saint maanaam foofu le premier gisement de gaz nekk bu bu bu am Sénégal bu war a produire plus de quatre cent cinquante milliards de mètres cubes de gaz donc ñun suñu position boo génnee Ndar la plus grande Euh, de part et d'autre ah Saint-Louis Louga la c'est à soixante-dix kilomètres donc loolu seen une position hyper boo xoolee ci également ci ci ci ci ouest bi nga gis ni euh, littoral bi on est à cinq kilomètres du littoral mu nekk loo xamante ni c'est un potentiel immense pour tout ce qui est produit halieutique nga xool ci ci ci ci centre bi ump nga dem li Linguère Daara foofu c'est la zone sylvopastorale du Sénégal donc foofu également ñu am fa un gros potentiel c'est moins de quatre-vingts kilomètres nga xoolaat également ci ci est bi balaa ngay jotaat benn grande agglomération di nga def cent kilomètres muy Thiès donc loolu mu nekk position stratégique boo xamante ni tey ñun lu ñu doon prôné muy que deuxième capitale bi ñu jëm ko yóbbu foofu parce que dina mën a centraliser tout ce qui est opportunité de l'est du sud et, et du centre ñu centraliser ko foofu au niveau de Louga mu doon benn plateforme boo xamante ni logistique jege nañ Touba te Touba chance bi ñu am ci ci Touba mooy que nii les infrastructures de base ak euh, orientation bi nga xamante ni suñu xalif généraux généraux yi nekk Touba ñu ngi nuyu sëñ Mountakha Mbacké yàlla na ko yàlla dëgëral yàggal taxawaayam te vraiment matal yéenam ci li mu am ci ci Sénégal ak àggale mébétu mébétu maamam mooy que ni euh, position boobu Touba am dafay tiire Louga dafay tirer ko donc position stratégique boobu nag d' abord loolu mooy mooy suñu pétrole mooy suñu gaz mooy suñu kii. Mm-hmm. au delà de ça nous avons également li ñuy wax de ressources humaines. mais am bu bu bu leer bu ñu bind tëgg ko teg ko te mi ngi ci suñu suñu plateforme web boo xamante ni dañ ko mettre en œuvre mu ngi tudd ligën point com. boo xamante ni dañuy permettre ressources humaines yi ma doon wax parce que tey bu ñu amee pétrole am gaz te amuñu vraiment les ressources humaines apte bu mën a jël loolu mën ko exploiter mën ko jëriñoo mais mais dañuy passer à côté donc ñun nag am nañ chance su am une population naturellement immigrée parce que bu ñu waxee Louga ñaari mbir la ñuy wax dafa tàng dafa bëri moodu moodu mooy moodu moodu yooyu tey bu ñu jëloon moodu moodu bu nekk sur le plan touristique ñu ne ñu am programme boo xam ne ce sera un programme touristique benn moodu moodu benn benn benn benn touriste xew ay xéewal la mais tourisme li muy indi day def appel à l'investissement c'est-à-dire que nit ki mën na ñëw yëg dëkk bi daal ne ah moom attan na ci tabax kër attan na ci indi industrie ainsi de suite donc loolu nag teg nañ benn plateforme web boo xamante ni day permettre képp kuy moodu moodu wala képp koo xam ne da nga bëgg ci da nga bëgg Louga wala nga juddoo fa nga mën ci inscrire wax fi nga dëkk wax li ngay def wax ban opportunité nga am pour Louga wax également lan nga mën a apporter Louga ban nit ku baax nga xam wala nga mën a indi orienté ko Louga bu ko defee ñun ñu centraliser ko tey bu amee lu ñuy liggéey ci santé ñu jël ñëpp ñuy liggéey ci santé ñu boole leen ci benn comité ñu xool nu ñu indee relever par exemple le plateau médical wala ñu apporter ay solution ci ci ci wàllu xalaat nga nekk euh, li nga li nga wax nii yëpp bu yàlla dogaloon nga nekk maire Louga ndax mën nga ko def. non man maire laa considéré sama bopp parce que maire état d'esprit la. man je me dis que ni li war maire moo ma war moo war kiy jaay ci marché bi moo war keneen ak keneen donc ni ñuy jàppee politique te je suis conseiller municipal en plus je suis municipal mais xam nga nit ñi ni ñuy jàppee politique non maire bi moo war a def déedéet àddina boo demee ci dëkk yu développé yàlla nattu na moom ma dund Amérique tuuti donc foofu boo demee da ngay gis ni li war maire bi moom moo war citoyen lambda parce que maire bi du génn ci dox ci mbedd mi di sànni donc ñun loolu ñun ñoo ko war a lijjanti maire bi du gis koo xam ne warul traversé fu mu warut a traversé mu bàyyi ko mu dem non ku ci nekk danga nga am lu la war ci ci sa responsabilité personnelle ci doxalinu dëkk bi ak réew mi donc kooku bu ko ku nekk jàppee boppam jàppee boppam maire jàppee boppam euh, député jàppee boppam président dinañ gis ni doxalin bi dina wuute te et ci li ñuy gën a mën a def pression ci li ñuy wax la l'exécutif parce que tey dañ leen naan ñun ñi ngi def suñu wareef yéen tamit nii ngeen ko war a defe mais tey ñoom bu ñu defulee seen wareef mu xëy na mën a exiger dara ci exécutif bi nga xamante nii day am coono ci dajale ressource pour pour nettoyer mbalit mi parce que tey bu fekkoon ni nit ñi taqalatuñu deux cent milliards yi ñuy def par exemple ci mbalit mi dinañ ko du yóbbu ci santé bu fekkoon ni par exemple nit ñi ñi ngi am comportement bi war xëy na ñiy feebar ba nga xamante ni état bi dina ci subventionné nañ leen jël par exemple sànke ñu muuroo ko ci tàngoor bi gars yi duñ ko def ah. léegi ñooñu bu ñu feebaree day relever la la facture sanitaire ce qui fait que en réalité politique bi fi mu toll léegi ci jamono mais du question nguur question responsabilité individuelle la. Mm-hmm. voilà donc ñun nag suñu gis-gis loolu la. loolu la ñuy jéem a jëmmal xëy na dina yeex par rapport ak ni ñu nit ñi daan gisee politique mais gëm nañ ko yàkkamtiwuñu nañ ko doxal gëmloo ko xale yi ñu màgg ak ñoom incha allahu rabbi ñoom ñun buñ ci defee suñu wàll ba fi ñu war a taxaw ñu taxaw fa ñoom ñu mun ko àggale. d'accord. jërëjëf euh, Alassane Binta euh, Samb moom mu nekk euh, Louga bokk ci kuréel gi nga xam ne mooy idéal mhm. waaye tamit mu bokk ci mouvance présidentielle nga bokk ci coalition républicaine sàmm sunu réew léegi yéen waa coalition boobu ñu nuyuwaale sunu xarit Pape Moudou Fall directeur de l'emploi mhm. yéen coalition républicaine sàmm sunu réew yéen nee ngeen Euh, président Macky Sall daal mooy tànn bi gën ci euh, deux mille vingt quatre yéen sax quinquennat euh, ngeen ko tuddee lan moo koy justifié. nga may ñu balaa ñuy tontu laaj bi. bi ma sant gërëm suñu président bi nga xamante ni moom moo yabal fii en tant que euh, chargé de la structure des cadres ma ñëw fii waxtaan ak ak yéen mu nekk nit koo xamante ni vraiment xaritu sa xarit la xaritu ñëpp la. Mm. parce que Sénégal yëpp gis nañ liggéey bu am solo bi muy def fële au niveau de la direction de l'emploi di jëmmal vraiment gis-gisu son excellence le président de la république ci li nga xamante ni moom mooy politique bu emploi di fësal également liggéey bu am solo bi muy def ci programme boobu nga xamante ni mi ngi tudd programme xëyu ndaw yi te nga xay les pôles emploi. porté ko nekk ci au niveau de plus de quarante euh, yi nga xamante ni ñoo nekk ci Sénégal te ñu ciy gis ay structures de référence yoo xamante ni dañuy def gestion urbaine de de l' de de de proximité parce que tey boo amee ANPEJ am DER am FONGIP am FONSIS am structure yëpp ñu dem foofu da lay permettre yow boo amee xalaat am yéene am bëgg-bëgg vraiment ñu yombalal la ko encadrer la ko defal la ko d'une façon très professionnelle pour que nga mu mën am njeexital ci sa dund également jàpp nañ ni lu am solo la ci programme xëyu ndaw yi ndax son excellence le président de la république dafa jël soixante-cinq mille jeunes fas yéene leen doté de qualification parce que xale yooyu tey bu fekkee ni dem nañ ba tàmbali liggéey ñetti at ku ko liggéey war nga mën a am la main war nga mën a am xam-xam boo xamante ni mën na la permettre tey bu programme bi jeexee ñoom dinañ mën a constituer wu en GIE wala beneen structure mën a continuer loolu ñu koy def ñuy koy tuddee genre prestation de service boo xamante ni mën nañ ko fay ANPEJ na leen jàppale ci li ñuy waxee tëggee seen seen business plan euh, DER mën na leen jàppale ci li nga xamante ni moom mooy formation 3FPT ak ONFP mën nañ leen jàppale ci li nga xamante ni moom mooy capacitation mise à jour seen xam-xam ak yooyu donc yooyu yëpp nekk ay ay innovation yoo xam ne son excellence le président Macky Sall indi na ko ci réew mi di jàppale Euh, xale yi di leen di leen jegele liggéey bi mais li nga xamante ni moom mooy euh, li ñuy xaw ñaawlu rek ci Sénégal mooy que ni nit ñi dañuy faral di toog du ñuy faral di dem vers l'information di dem uti par exemple information boo xaman soxal na leen lu jëm ci seen wàllu liggéey lu jëm ci seen wàllu yëg accès information boobu moo tax ñu teg 46 déjà pôle mais maintenant ci animation bi boo gisee léegi ñu ngi def ay road maanaam jël ay ay ay doxalin yoo xam ne dañuy jege nit ñi dem di leen wax di leen ñaax di leen xëcc parce que lu jëm ci politique publique ñaari stratégie moo am mooy maanaam bi nga xam ne dañ koy pousse nit ñi ak boo xam ne dañ leen di xëcc ñu ñëw donc léegi nag ñi ngi leen di xëcc ñi ngi dem di leen fekk yi fi ñuy nekk di échanger ak ñoom di jël seen ay information ak way xarala yu bees yi nga xamante ni président daf ci def liggéey bu am solo teg fi benn centre des données boo xamante nii vraiment day permettre képp koo xamante ne nii tey yaa ngi bëgg a liggéey ci lu jëm ci wàllu digital comme ni ñu ko tuddee te jamono foofu la toll nga mën ci am accès donc léegi nag dañuy ñaan nit ñi bu ñu mënulee sax dem ñu dugg ci seen téléphone même am na app euh, fonction vocale boo xamante boo ne ONFP dina la ko génneel ci site nga ubbi boo mënul gis nga wax ku la liiral wala keneen ku la jàppale parce que aussi loolu moom mooy yombalal mbir yi du damay toog rek nguur gee war a ñëw ci man mais nit ku nekk aussi am nga responsabilité dem xool foo xamante ni jaakaar nga ni mën na la indil dara ci sa dund wala mu yokk ci sa dundin nga dem nga dem nga dem ver loolu d'accord léegi euh, question bi mooy euh, yéen coalition républicaine sàmm suñu réew nee ngeen président Macky Sall mooy seen candidat 2024 euh, nee ngeen mooy tànn bi gën. Hmm. yokk ngeen si ne juridiquement moralement war naa mën a bokk. lan moo koy justifier. bon li koy justifier mooy que ni ñun dañu nekk ci benn ligne de conduite boo xam ne suñu logique la suñu logique politique la parce que ñun bi ñu tegee suñu coalition dañ ni li ñuy njëkk a jël comme comme comme comme credo mooy. porter la candidature de son excellence le président de la république parce que jàng nañ tuuti constitution bi am na lu ñu ci wax déglu nañ également ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci déglu nañ également yeneen avis on s'est rendu compte que ni son excellence le président de la république même waxagul mais ñun gis nañu ni war na mën a nekk candidat ñun ñu ne nag loolu day nekk suñu suñu suñu dox ñu tàmbali ko dox ëpp na at ñu ngi ciy dox di ci wax di ci def conférence di ci woo saytu ci ñi nga xam ne yàlla may na leen xam lañ ci lu jëm ci wàllu droit constitutionnel ñu jox ñu seen avis pour que ñun ñu mën a jëmmal également ñu gis li nga xamante ni son excellence depuis dix ans mi ngi koy def ci réew mi mu doon loo xamante ni c'est exceptionnel nit ñi ñëpp ñi ngi wax naan bilan matériel bi ñëpp a ci d'accord ki dem maa ngi def benn débat ak benn kilifa bu nekk ci opposition bi mu ne ñoom ils sont d'accord que ni li mu fi def phénoménal donc ñun président loolu lañ koy doyee ñu ne non léegi euh, bilan immatériel mais moi je leur ai fait comprendre que le bilan immatériel d'abord la chose la plus importante mooy dayo générosité ak humilité mooy les attributs essentiels d'un homme politique le président de la république daf ko jëmmal en maintenant benn coalition pendant douze ans c'est du jamais vu et puis koal ne pas c'est pas n'importe quelle coalition. ay ko mais ak yelleefu askan wi ñu ne dañ ko nasaxal. beneen bi aussi yorin wu sell wi ñu doon xaar aussi. Abdou Euh, ñu balaa ñuy egg ci loolu ma àggale suñu suñu raisonnement xam naa danga may kii mais man di mi tamit u média la xam naa affaire yi muy demee <laughs> léegi bon pour wax la ni loolu lu am solo la déjà générosité la l'humanisation de la fonction présidentielle mooy maanaam koo xamante ni tey dañ koy gis ci dëj di ko gis ci ngénte di ko gis ci takk mu nekk nit koo xamante day génn dem doxantu jëflante ak nit ñi c'est c'est quasiment du jamais vu c'est du nouveau Sénégal parce que fonction président moo tax nit ñi doon wax nguuru. da doon toog ci kaw gaaw mais est-ce que Abdoulaye Wade doon ko a jege mais ah, président Abdoulaye Wade ñu ngi koy ñaanal yàlla dëgëral taxawaayam mais loolu lu mu jàngal. te nga xamante ni gis nañ ni njëriñu askan wi la dañ koy doxee loolu mun nañu wax ni président Macky Sall da ko jàng ci président Abdoulaye Wade mais mi ngi koy defee ci beneen anam beneen façon donc loolu yëpp dañ ko koy santé pour revenir ci sa ci sa question par rapport ak euh, ay àqu àq ak yelleefu nit ñi ak gestion ñun suñu gestion dañ ko accès ci li nga xamante ni mooy gestion sobre et vertueuse ku nekk nag mën nga am sa outil d'appréciation mais yaa a des réew dañ ko organiser am na lu ñuy tuddee les corps de contrôle corps de contrôle yi bu ñu ñëwee am na procédure bu ñuy jaar bu ñu ci jaaree bu ñu paree seen liggéey am na ku ñu ko war a jébbal ki ñu ko war a jébbal bu defee liggéeyam wala bu ko deful kooku ñun liñ ci xam mooy que ni ñu ngi toog di ko déglu que gisaguñu kenn koo xamante ni xëy na dem na défier corps de yi ñu ko mu bañ a wuy ji wala ñu defloo ko mu bañ a def donc dëkk bi dafa am yoon nu muy doxee nit ki nag mën nga nekk fi nga nekk nga am sa appréhension am sa gis-gis am sa yëg-yëg su la neexee nga wax mais lii nga wax ak lii nga xamante ni moom mooy justice justice wala mooy temps wu justice du bokk ku ci nekk nag sañ nga am sa bëgg waaw mais ñu bari dañu gis ne dafay am ay rapport yoo xam ne dafay dafay épinglé ñu ànd ñu nekk ci nguur gi mhm. te dara du leen fekk non man sañu maa wax ni dara fekku leen ci parce que euh, ñi euh, def seen rapport muy les organes de contrôle à qui je voue un respect immense bu ñu defee seen liggéey dañ koy jox seen ay naataangoo seen ay naataango mooy ñi nga xamante ni ñoo yore lu jëm ci wàllu yoon ñooñu bu ñu leen ko joxee ñooñu tamit am nañ liggéey buñ ciy def donc liggéey boobu xëy na temps bi mu war a jël du temps wu Abdou Khadre bi nga xam moom bu sañoon tey suba mu am information bu tàng jër boo xamante ni da koy mën a jox nit donc loolu nag ku ci nekk dinañ la bàyyeeg li nga xam moom mooy sa wàll Sénégal nag ñëpp ay entraîneur lañ ñëpp ay ay ay juge lañ ñëpp ay kii lañ mais am na loo xamante ni dafa am lu ko jiitu mooy li nga xam mooy yoon bi ko lal am na ñoo xam ne ñi ko xam ñoom duñ ko wàcc. waaw mais xam nga sànq yaa ngi wax euh, yërmande nga ne ka ne président Macky Sall moom la am. Mhm. jamono jooju nga koy waxee ñu baree baree bare tey euh, ñoo ngi ci kaso bi. ay mhm. yaayu jàmbur ay baayu jàmbur. Mhm. am ñoo xam ne aussi euh, ñu bari dañ leen di. maanaam nekk si ay jafe-jafe. di leen di gàllankoor ñu nekk ci kaso bi loolu est-ce que mën nañ see tudd yërmande. mais Abdou Khadre loolu jàpp nga ni président yoonam mi ngi ci. président. waaw ah, yaa jàpp nga ni yoonam. mi ngi mais mën ko saafara xam nga yow tu es un professionnel des ah, médias. mais li ko mën a saafara li ko waneel mooy plus de trois cent soixante seize détenus yu mu bàyyi ci ci korité bi. du dëgg donc loolu aussi dafa am process dafa am fu muy jaar parce que tey yoon mënul nekk fii avec la séparation des pouvoirs yoon nekk fi def liggéeyam président di jéem a weñ seen loxo. te tey nit ñi bu ñu waxee moom ci ci dayoom ci cëram am na possibilité def grâce présidentielle. ñu ngi koy wax ñu ngi koy defal mais day du ko def nii par de tête parce que xamu leen day jot rapport boo xamante day jóge ci ñi nga xamante ñoom ñoo yore détenu yi ñu indil ko ko mu xool apprécier diisoo ceeg ñi mu ci war a diisool soog a jël décision donc loolu aussi ñuy wax ñi nga xamante nii dañoo tooñ te ñi ci ëpp ñi ci ëpp ñi ci ëpp dañoo def ay njombe yoo xamante ni c'est purement privé dañuy ñëw wax ci Abdou Khadre loo xamante ni yenuwul yàq dund Abdou Khadre parce que am na wax yoo xam buñ ko tegee ci Abdou Khadre illaa yow mi diin ku bëgg a wax lu ñaaw ëllëg fàttali ko sa njaboot wala say sët dina ko def est-ce que loolu dañ ko war a bàyyi mu prospérer Abdou Khad ci non ñoom nee nañu ay détenu politique lañ. non détenu politique kooku moom ku mu neex nga ko mais tey ku jël euh, cocktail Molotov prémédité sa action loolu c'est une action criminelle il faudrait qu'on soit sérieux bu fekkoon ne yow danga jël xeer rek mën nañ ko considérer comme arme blanche parce que dafay gaañ ñii nga xamante ni man je respecte la fonction euh, policière man dama am goro dama am ay frères yoo xam ne ay policiers lañ tey bu ñuy gis ñoom ñuy def seen liggéey ay nit ñoo xamante ni ñoom ñoo leen jaral lekk jaral leen yendu ci naaj bi ñu leen di sànni xeer parce que par par benn position. loolu aussi vraiment nañ ko nañ ko nañ ko delloo si looloo tax may saluer vraiment l'approche très élégante de son excellence et l'appel bi mu def ci ci ci ci ci ci gi ci mhm. dialogue politique bi dana ñëw ci dialogue politique bi euh, même candidature bi fi ngeen ko fi ngeen ko teg danañ ci ñëw ndax yow ne ngeen def na président Macky Sall def na bilan ci ñaari côté yëpp mais mhm. problème bi mooy euh, ñun dañuy gis ne wala sénégal yu bari dañuy gis ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi mhm. rawatina ñi ànd ak Ousmane Sonko dañuy def dara ñu jël leen dugal leen ci kaso bi. Mhm. même su dee man nañu ko justifier kana dañu def lii kana dañu def lii wala dañu wax lii wala mhm. dañu bind lii. Mhm. mais li si posé problème ñu bëri wala li xel di tey mooy dañuy gis ne ñooñu loolu ñu wax wala loolu ñu def ba ñu yóbbu leen ci kaso. am na lu tol noonu wala lu ko ëpp wala lu méngoog loolu loo xam ne ku bokk ci Macky Sall def na ko te dara fekk ko ci. man yaakaaruma ni am na ñoo xam ne dañoo bokk ci Macky Sall man xam nga lan laa gëm ñi nga xamante ni dañoo bokk gis-gis ci politique ñu ànd parce que Macky Sall ñi bokk ci moom man mënuma ko apprécier mais ñi nga xamante ni par exemple nee nañ ci moom la ñu bokk ñu moom la ñuy wuyoo di def loo xamante ni xëy na keneen ku dokki ci kujje gi def na ko kooku il revient aux institutions de justice ko organiser ko ñoom ñoo koy organiser ñoom ñoo koy doxal donc man je ma je pense être très mal positionné pour ñëw di joxe porter ay jugement ci li nga xamante ni moom mooy action justice bi nga xamante dama ko respecté bu baax a baax a baax ñoom élément yi ñuy am pour apprécier ñun amuñu ko. yow peut-être journaliste mën nga ko bañ man en tant que militant également mën naa ko bañ am am na mbir yoo xamante ni nag aussi ku ci nekk da koy condamné mooy maanaam lu jëm ci langage wala attitude yu violente yoo xam ne dañ koy am de part et d'autre muy suñu mouvance présidentielle wala muy opposition ku ko ci am ñun au niveau de la coalition républicaine on le condamne fermement parce que Sénégal du réew boobu Sénégal réewu dialogue la réew échange la réewu weccoo xalaat la réewu mbokk la parce que tey bu ñu demee ba ñi nga xam ne bokkuñu gis-gis bokkuñu diine bokkuñu gëm bokkuñu wàllu tarixa bu day dund dans la communion l'allégresse et tout mais loolu mais politique bi nga xamante nii daanaka euh, solo si bëriwul trop ci suñu dund man dama jàpp ni warul mën a tax dëkk bi di yëngu wala muy am loo xamante nii day am ayib ci suñu dundin donc man su ma gis-gis loolu la mais vraiment euh, li yoon war a def ñu bàyyeekook yoon li nga xamante ni keneen aussi moom la war a def ñu bàyyeekoo ko. jërëjëf euh, Alassane euh, Bint euh, Samb euh, yow nga yow nga bokk ci kuréel gii di idéal bokk ci coalition républicaine sàmm suñu réew. membre de également sous coalition bu bokk ci Benno Bokk Yaakaar. ok parce que suñu secret suñu suñu président Pape Mourou Fall dafay siéger ci secrétariat exécutif permanent bu Benno Bokk Yaakaar. d' accord léegi euh, sànq maa ngi lay wax na leen yéen fan ngeen teg ndax juridiquement euh, ñu bari nee nañu président Macky Sall warut a def. beneen ñu bëri euh, waaw ñu bëri ci ay ay mais mais wax jooju li ko tënk gis nga Abdou Khadre ñi ko tënk genn geneen wet gi dégg nañ fi ay ñoo xam ne ñoom ñoo yore kujje gi ñoom nangu nañ ko nee nañ <laughs> léegi ñu bëri ñooñu sax ñu bëri ñooñu sax <laughs> président Macky Sall si jiital ah. ak Ismaïla Madior Fall ndax ñoom mm-hmm. dañu waxoon ne 2019 mm-hmm. bu ñu leen falee mooy seen njeexantalu mandat non damay wax sénégalais ñu dem xoolaat vidéo Ismaïla Madior Fall dañ dem xoolaat ko. léegi waxoo lu tax waxoo ba président bi ñu xoolaat ko. non bosu président mën nañ ko xoolaat ñu déglu ko président ba léegi li mu waxoon jógu ci ah génnu ci ba li mu waxoon moom ba léegi mi ngi ci président dégguñu ko mu wax dafa ni nii wii nii looloo waral suñu sorti bii mujj nii ñun ñu ne ko léegi dafa jot président nga leeralal ñun ñi nga xamante ni ñoo la bëgg a jël def loola waat beneen beneen candidat déposé waat sa candidature parce que gis nañ ni njëriñu Sénégal nga. loolu njëriñu Sénégal la li président li mu def fii ci fukki at bu ci yokkee juróom ñu stabiliser li nga xam ne moom la ñuy wax les acquis mais Sénégal euh, jublu ci yeneen i yeneen i ko quinquennat mais parce que euh, boo dégloo Ismaïla Madior Fall dafa ni woon ci constitution bi li ñu wax article 27 le président est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois ba pare ñu wax ni nul ne peut plus de deux mandats consécutifs donc la base lan la man du ma juriste du ma bëgg ñu dugg ci ci ci débat juridique bi parce que day jël suñu temps te li muy leeral ci askan wi bëriwul mais ma jël rek comme comme seede euh, Barthélémy Diaz li mu waxoon ci télé bi mi ngi daw Ousmane Sonko li mu waxoon ci télé bi mi ngi daw ak ñeneen ak ñeneen donc loolu nga xamante ni c'est un débat purement juridique ñu suñu yoonu réew tënk ko am ñu mu ko jox ñu wekk leen respecté leen jox leen seen cër na leen ñëpp maandu delloo leen seen cër muy le conseil constitutionnel bi nga xamante ni le moment venu dina recevoir d'abord les les les demandes de candidature bu ko étudier dina wax ñan ñoo éligible et bu boobaa ñun dinañu fekk ñun ñu pare parce que ci pare boobu on est à neuf mois des élections neuf mois parce que benn mois bi mën nañ wax ni campagne électorale bi dañ koy décompté ñun li nga xam ne moom lañ bëgg mooy que euh, ñi bokk ci conférence des leaders de la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu jël li nga xamante ni moom mooy candidature u président ñu dem débattre ko waxtaan ci waxtaan ci ba tënk ba ñoom ñëpp buñ ci d'accord et ñu ngi leen di wow ci loolu parce que moom mooy seen njëriñ mooy njëriñu Sénégal mooy njëriñu askan wi. parce que réew bu ñu koy jox dañ koy jox koo xam ne am na expérience am na loo xamante ni mi ngi koy doxale kon da nga jàpp na ñu nekk ci opposition bi amuñu expérience. dese na leen parce que pratique gouvernementale expérience la doxaleen le président de la République il a au au moins plus de vingt ans d' expérience. looloo ko waral bi mu ñëwee mu mu mu mu teg ay réforme teg ay politique yoo xam ne da ngay teg mu dem il été il a occupé toutes les stations les plus enviables en politique Sénégal ministre ministre de l'intérieur premier ministre président assemblée nationale loolu da ko may vision looloo tax mu mën a réaliser ce qu'il a eu à faire en un temps record te loolu expérience gis nañ ñi ci bitim réew ak fépp ci àddina bi expérience moom mooy fay te expérience boobu duñ ko am ba pare am un président boo xam ne il est en train de faire de d'excellentes choses am yéene ci dëkk bi vraiment ñu koy ñu koy yàq pour des questions yoo xamante ni c'est pas juridiquement fondé benn beneen bi mooy j'en profite pour saluer l'attitude de certains leaders qui ont commencé a accepté vraiment le l' appel au dialogue de son excellence le président de la République. est ce que dialogue bi sincère na est ce que jëbluwuñ si euh, ndax am na ñoo xam ne nee nañ euh, dil la démb lire naa ko si benn journal ñu ne ñoom ni ñu ko gisee daal mooy dañoo bëgg fexe daal ba ba seetal Karim Wade ak xalifa euh, Ababacar Sall am na aussi ñu jàpp ne dañu dialogue bi yëpp ay manœuvre la yoo xam ne pour déstabiliser Yewwi Askan Wi la. gis nga par respect à ces à ces à ces personnes muy Khalifa Sall Karim Wade. Idrissa président Macky Sall je ne parlerai jamais de deal parce que ñooñu ils ont consacré plus de trente ans de leur vie au Sénégal politique dañu yaakaar ni lu yomb la mais politique yombul politique da ngay xañ sa njaboot pour askan bi nit ñi duñ ko gisee noonu ñoom dañuy gis ni da ngay bànneexu amul bànneex politique bés boo xamee ay trois heures de temps ngay nelaw quatre heures de temps doo gis sa njaboot doo def leneen ak leneen loolu du bànneexu te loo yor ci askan wi la jëmaat loolu du bànneexu moi je pense que ces gens là yi nga xamante nii dañu jël seen dund yépp consacré ko ci développement ak essoru Sénégal tey euh, bu woote jotee toog jotee ñoom dañu am responsabilité parce que tey bu ñu doon def ci hiérarchisation des âges dañ leen di teg ci sages yi seen cër muy dëgëral réew mi li nga xamante ni dañ ko doon fekk ko fi muy dal jàmm Euh, jox cër kilifa yi jox cër mag ñi jox cër suñu suñu kenn réew muy kilifa diine yi loolu ñoom dañu am responsabilité préserver ko te dañ ci war a waxtaan je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire 2010 2011 lan lañ fa gis dëkk bi pëccox au plus de mille moor fan la mujjee ñu yóbbu ko balaa ba ala e euh, Laurent Gbagbo mais bi mu demee tey deux mille vingt 2021 ñibbisiwul Côte d'Ivoire mm-hmm. defuñu ko membre de l'opposition tey mi ngi ñëw euh, le président Alassane Ouattara ak Henri Konan Bédié ak ñeneen les autres forces vives de la Côte d'Ivoire ñu ngi waxtaan pour jëmmal dëkk bi mais ñun damay expliquer que ni ñun eggaguñu foofu te loolu ñun li ñu ko may suñu chance mooy waxtaan Sénégal terre de dialogue la ñuy wax et de teranga aguñu ci yoon bi li ñu gars yi di def nii bëgg ñëw naan noo duñ dem ku mu neex nga bañ a dem mais politique chaise vide gis nañ conséquences mais li war damay saisir opportunité bi pour saluer la grandeur et l'attitude républicaine du président Idrissa sec parce que tey munoon na ñëw wax leneen wala mu doxale neneen mais il a reconnu avec humilité erreur appréciation erreur d'appréciation yi mu amoon ci président Macky naan ko sa vision yamul jam ñaajo mais gis na ni vision bi wër na Sénégal ba romb na Afrique sur le plan de la diplomatie au niveau international mais ñëpp a ñëpp bëgg a tey nekk à la table avec le président Macky Sall donc yooyu loolu la ñu xam ci Sénégal loolu mooy suñu aada wax lu rafet ci ci ci Seck yàqul dara ci suma cër le président xalifa Sall je vraiment je jeu je le félicite ci grandeur bi mu am malgré li mu dund yëpp ah jël ko dem àttana dem waxtaan parce que président Abdou Diouf bu ñu ko fàttalikoo loolu la doon xalaat donc ñun suñu gis-gis ci politique bokkul ak li nga xamante ni moom lañ gis avec l'avènement des réseaux sociaux wax lu ñaaw saaga xaste ñun on est à l'ère de la promotion des réalisations du chef de l'État mais mais mais euh, mais Alassane mhm. euh, sànq yaa ngi cité euh, fu ci mel ni Côte d'Ivoire ak jafe-jafe yi nga xamante ni tey euh, moom la amoon mais yéen ñu bari dañu gis ne même Alioune Tine mos na wax lu mel noonu lu jëm ci wàllum troisième candidature président Macky Sall Euh, maanaam troisième candidature yéen moom deuxième candidature ngeen ko euh, troisième candidature yéen moom deuxième quinquennat ak yooyu ngeen ko tuddee. Mhm. mais est-ce que président Macky Sall ndax gis nañ 2011 bi fi Ablaye Wade ne dafay def beneen mandat li am ci Sénégal est-ce que bu président Macky Sall forcé jàppoo ne li fi amoon deux mille 2011 lu ko raw mën naa am Sénégal. non forcé du am forcé pour lan lu la yoon may nga dem doxal ko. léegi nag dégg nañ fi ñoo xamante ni ñoo nekkoon les acteurs de 2011 ñu ne li ñu doon def da doon def jëfinu politique léegi nit ñi màgg nañ yeewu nañ jëfinu politique moom am na fu mu yem mais léegi dëgg politique dafa am lu ko lal tamit yoon daf ko lal ñun nañ toog déglu yoon yoon bu ñu waxee yoon bi ñuy jaar ñu topp yoon loolu mooy dallu dëkk bi loolu mooy sagu réew mi Sénégal gis nga les plus beaux jours de la démocratie ont été tournés au Sénégal mooy bi président Abdou Diouf perte élection yi en 2000 Abdou euh, président Abdoulaye Wade ne ko non da ngay dem représenté ma ci sommet bi donc loolu la ñu xam muy jëflante bu rafet moom la Idrissa Seck jëmmalaat ak président Macky Sall moom la président Khalifa Sall nekk di def nii donc ñeneen ñi nga xam dañu gis beneen attitude et puis je salue également l' attitude de Jean euh, Barthélémy Diaz parce que moom ki doomu kilifa goo xamante ni dañ ko nàmpatal ci république Euh, c'est un grand opposant. Il fait partie des plus grands opposants du, du, du, de son Excellence président Macky Mais 4 avril, on l'a invité. Il a accepté en tant que maire de Dakar. Il pouvait ne pas le mu dem donc loolu mooy taaru suñu dëkk loolu mooy jëmal suñu démocratie du xeex du cortel Molotov du baare ay tali du taal ay pneu loolu beneen vision lay joxe. mais yéen coalition républicaine sàmm suñu réew yéen lan moo tax aussi ndax def ngeen fi beneen déclaration bu ngeen waxoon ne. Euh, maanaam jàmmi Sénégal ngir Sénégal ba ñu dugg ci kaw ak enjeu yi am ci réew mi pétrole beeg gaz bi euh, maanaam solution bi mooy éliraat président Macky Sall fu ngeen ko teg. mais fi ñu ko teg mooy président Macky Sall bi ñu ko falee ba léegi gis nañ ni mu def réew mi. ñaata pont am na dëkk yoo xamante ni dañ leen bedd woon bokkuñu woon. Sénégal moom rek du mu am xam-xam après keneen day ñëw. waaw d'accord ah am na xam-xam xam-xam bi ñi fi nekk ci suuf di ko liggéey di ko di ko tënk di ko ko nalal di ko ko jox waaye leadership bi du ñëpp ko am xam-xam bi moom mën na wasaaroo mën na yaatu waaye njiit leadership bi cër boobu yàlla joxu ko ñëpp moo tax moom mu nekk suñu président moo tax ñu gëm ni cër boobu nga xam ne yàlla jox na ko ko ñu ciy bénéficier wu sur le plan au national sur le plan international parce que am na yoo xam ne ñi waruñu ko fàtte fii la fi nekk président Union africaine bi mbir yi xawee compliqué dafa dem jàkkaarloog Poutine waxtaan ak moom ñu am corridor céréalier boo xam ne ubbi nañ ko pour le bonheur des africains principalement yi nga xamante ni amuñu woon accès ci yenn ci yenn produits céréaliers yi nga xam ne foofu la doon jóge te bi mu ci jógee jàngat bi mu ci jëlee mooy tey de d'accord situation bi am ci guerre russo ukrainien bi tey moo ñu xañ xëy na ñu accéder ci yenn produits mais tey bis tey je donne instruction au ministre de l' agriculture ñu jëmmal lépp loo xamante ni politique agricole bu accéder ci loo ci bu accès ci loolu nga xamante ni moom mooy production de blé te gis nañ tey président euh, le ministre Aly Ngouille Ndiaye ñu koy nuyoo passage liggéey bu am solo bi mu ci def ba ñuy waaja a jëm ci première récolte yi diligence bi en moins d'un an donc gis nañ taxawaay bi ñu ci am donc loolu yëpp dafay firndeel ni son excellence le président de la république chance la pour pour Sénégal ci suñu gis-gis keneen mën na gisee neneen mais il faudrait qu'on accepte vraiment la liberté à chacun. Ah, d'accord seen gis-gis loolu loolu loolu mooy seen gis-gis léegi euh, Ousmane Sonko ñu bari dañu gis ak ñoom waa Pastef dañu gis ne. Mhm. Euh, dangeen maanaam président Macky Sall jël justice bi di ko instrumentaliser. Euh, di dal ci seen kaw ñu gis ne ay nitam ñu baree bari aussi ñoo ci euh, kaso moom ay euh, procès yu bare bare bari euh, nekk ci euh, nekk ci ndoddam mhm. ñoom singali lañ ko gisee beneen bi mooy bëgg fexe mu bañ a bokk ci élection présidentielle 2024 loolu xëy na ku ku ku ku nekk à court d'argument ku amatul xalaat mais am na loo xamante ni yiñ koy toppee yëpp moom personnellement euh, Ousmane Sonko lu jëm ci mbu diggante moom ak Mame li mu wax moom moo ko wax kilifa ku bëgg a jiite réew ëllëg ak li si biram boo waree def dara da nga koy seet seetaat ko kilifa kilifa lu luñ jug mu am lu mu ci wax te téyewul seede yi donc loolu boobu c'est purement privé beneen bi ñuy wax ak Adji Sarr man mbir la moo xamante ni vraiment am naa kersa loolu di ci wax mosuma ci bëgg a wax te duma ci wax xam nga lu tax parce que dafa nekk loo xamante ni jàppuñu ni lu set la ci suñu diine ak ci suñu aada sëñ Muntaxa ci ci cellam nga waxoon na ni lii dafa setul daal bu yaboo ñu ñu teg ko man foofu laa koy teg parce que aussi dañu am njaboot man dama am njaboot boo xamante dina mañ déglu dañ may seetaan su ma duggee ci débat boobu diñ c'est une façon pour man de banaliser bi nga xamante ni moom lañ koy jiiñ man duma liñ koy jiiñ mais kilifa timit ci suma gis-gis bu gàtt am na foo xamante nii waroo faa dem am na loo xamante nii waroo kaa def am na doxalin boo xamante ni warul kilifa bu nee ak pro loolu la ñuy wax ay ay ay ay ay ay ay procès yoo xam dañ ko ci teg ci ndodam kenn tegu ko ci ndodam moom moo ko teg ci ndodam parce que ñaar yëpp c'est purement privé. waaw mën na nekk privé mën na nekk privé nguur nekk ci euh, nguur nekk ci ginnaaw wala doxalin ci doxalin. woo ah, xam ne man de li leer li nga xam ne mën nañ ko wax mën ci teg bat gisuñu ci nguur. man li leer te wóor mooy que ni on parle de séparation de pouvoir am na justice ni muy doxale dañu respecter justice mais tey li ma munta nangu ak di ko ñaawlu mooy wax yu ñaaw yi ñuy jël di ko teg ci institution yi lu mel ni justice lu mel ni police lu mel ni gendarmerie tey bi ñuy dem foofu wala ñuy wax yenn wax yi woowuñu police na leen kaa man maa ko wax wala man maa ngi dem fii donc am na loo xamante ni vraiment bu demee ba toll fa instrumentalisation politique bi ragal naa ci beneen côté bi la jógee ñu bàyyi ne nguur gi dafay def leneen nguur gi dafa am fu mu yem justice dafa am lu muy def euh, législatif dafa am lu ñuy def te ku ci nekk la nga war a def nañ la bàyyeeg sa cër nga def ko léegi nag il revient aux populations ñoom ñu apprécier mais ñun ñi nga xamante nii dañu ciy jiiñ dara leer nañu leer ñu bokkuñu ci dañoo war nag ñu leeral nit ñi xamal leen ni lii nii la tëddee. waaw d'accord même institution yooyu ngay wax aussi. que ne àndoo si ñu koy ŋàññi même ci côté nguur gi dañuy faral di ŋàññi institution yi di ŋàññi sax ñi nga xam ne ñooy magistrat yi. mais loolu loolu day wane également grandeur u chef de l' état grandeur également les institutions de notre pays mais am na foo xamante ni waru fa yegg. parce que tey bu nit bi demee bay euh, jël wax bu ñaaw di ko teg ci juge bi juge bi dafa am waaj dafa am njaboot dafa am leneen ak leneen donc dañu leen respecté. te ñoom dañu dañu xaru ah mënoon nañ dem feneen liggéey mais dañoo ñëw ne ñun dañuy service suñu peuple seen activité c'est sacerdotal donc yaakaaruma ni am na fu ñu ciy féete wala fu ñu ciy far fu leen di jaral tey ñu wax loo xamante ni ëllëg ak li ci biiram dinañ ko rëccu donc man cër boobu ma jox justice parce que man nekkoon naa ci beneen position nekkoon naa position position opposition opposition bu justice defee dara mais nit ñi dañuy ñëw di jéem a wax ne lii ak lii du yoon mais li nga xamante nii jàpp naa ko man te gëm naa ko mooy que ni justice liggéeyam lay def man je dans le privé jëflante nañ ak justice mu mu jox ñu tort ñu def recours yëpp ba yàlla may ñu ci ndam donc loolu dañ koy dañ koy nangu léegi nag bu ñu jël benn benn benn benn point wu benn benn cas bu ko généraliser amoon na avis sa pas objectif et puis lal mbir yëpp ci politique parce que bi mbir mi tàmbalee dañ ni non politique le président moo ñu fa def mais kenn kenn tëddul sa kër président fekk la fa ne la yaa def lii d'accord xale yi nekk ci ci ci réseaux sociaux yi aussi ñu leen di wax di wax loolu ñàkk culture la parce que boo nekkee ci parti politique moi je pense que la première responsabilité des leaders c'est de les former xamal leen lan mooy àddina xamal leen lan mooy république xamal leen lan mooy internet parce que internet dañu li li li li li li li benn acteur américain doon wax rek nee na parler à une personne c'est parler à tout le monde maintenant yow bi ngay wax ak nit ki ñoom lal nañ ko lal boo xamante ni fi ngay bindee am nga adresse dañ lay localiser am nga tu es à une carte Euh, digital foo xamante ni foo mun ti nekk dañuy dem jël la amul contrainte munoo ko miim sa téléphone sa téléphone la sa numéro téléphone sa numéro téléphone c'est pas pour rien que y'a cinq dix ans ci ginnaaw président de la république a tenu à ce que tous les opérateurs ñëw identifier localiser les les les les les les les détenteurs les souscripteurs ci ay ay ay orga opérateur téléphonique. d'accord mais mais mais Alassane ñu bari aussi dañu gis ne euh, candidature Ousmane Sonko. Euh, état bi euh, nguur gi dafa bëgg instrumentaliser justice bi ngir mu bañ a bokk ci présidentielles yi am ñu gisee ne bu ñu ko fexee ba bokkul ci euh, élection présidentielles yi Sénégal mën naa yëngu. mais Sénégal bu yëngoo kon dina doy waar parce que réew la ñu yore ñu am mun nañ wax police yi gën a mag ci Afrique. am également euh, gendarmerie yi gën a taxaw ci àddina bi ñu am également armée bi gën a taxaw ci àddina bi armée et puis ñuy saisir occasion bi di attirer benn attention parce que gis nañ fi jëf bu ñaaw ci ci ci ci 3 avril communiqué bu ñu génnee waa yooyu askan wi wax ni dañu waxtaan ak waa armée on a une armée républicaine servir ñu la servir ñu la personne du président Macky Sall mais ils servent la l'institution du président de la République donc yooyu ñu jël seen manipulation yooyu nga xam ne naxaale nañ ci xale yu bëri yi nga xam ne maa macha allah amuñu chance su jàng wala xam ni àddina di doxee loolu mënuñu ko def ak armée ñu leen ciy ñaax rek bu ñu nekkee seen combat politique na yem ci seen combat politique y des institutions qui sont la pour tous les sénégalais ñu bàyyi leen ak sénégalais bàyyi leen ñu def seen liggéey ni mu waree donc loolu c'est la responsabilité par rapport ak instrumentalisation loolu wax naa tontu naa ci ñoom xalaatin la parce que tey amatuñu fu ñu jafandu wax nañ ay wax. tey bu ma la nee yow euh, da ngaa def lu ñaaw ma wax la ko Abdou Khat sañ nga ma porter plainte wala sañoo sañ naa ko waaw ah, boo ko defee léegi nag bu ñu demee ci yoon yoon la ñuy bàyyi mu def liggéeyam foofu la toll diggante Mame Mbaye ah, Niang mais xam nga tey Mame Mbaye li ñu si jaaxal mooy kuy dem ñu lay escorté jekk-jekk tëj sa buntu kër nga bëgg a génn doo mën a génn tëj sa mbedd yooyu tamit euh, lan lay niru xam nga loolu lan la préservation moom moo ko wax de damay répéter li nga xamante ni le le le Ousmane Sonko wax na ko moom nee na euh, day sant di gërëm waa police parce que fii biñ ko fi jëlee ci autorote bi dugal ko ci oto GIGN yóbbu ko këram nee na boobu euh, dañ ko doon aar na jàpp ni loolu ñu koy defal tamit dañ koy aar loolu policiers yi teg foofu di ko garde dañ koy aar dañ koy jëmmal dañ koy fexe ba nga xamante ni lépp loo xam ne mun na ko lor te ëllëg comme ñoom ni ñuy def ñu jiiñ ko askan bi gis nañ ko. Ah, euh. mais mais mais nee na sax euh, liquide bi ñu ko sotti def na ay analyse analyse yi wane na tentative d'assassinat. li ñuy wax ci ci ci ci pratique politique manipulatrice baa ngi noonu. am na loo xamante ni doo ko kuy kuy xaru du tàggoo ñun ci suñu gis-gis kuy xaru du tàggoo boo amee looy wax. ñoom xam nañ ko ci il est expert en point de presse. ba journaliste yi yéen da ko doon kaas doo leen woowee doo ñu woowee ñu ñëw wax nga wax dem sa yoon non ce n'est na ñëw indi ay éléments mu présenté ko léegi nag dëkk bi aussi am na yoon. nee na dañ ko bëggoon ñan la wax ñi nga xam ne ñoom ñooy non force de défense et de sécurité ñun ñëpp a ci bopp man bu boobaa man mii au nom de la coalition républicaine buñ ci waxul man à titre personnel man dinaa porter plainte pour diffamation parce que loolu dafa doy il faudrait qu'on soit objectif et puis qu'on wax ay ñun am nañ ci ay famille am nañ ci ay kii man sama papa nekkoon na directeuru école euh, Camp Abdou Diassé ma nekk fa xam ñoom ni ñuy doxee ak lan la ñu paree jaay seen bakkan pour njëriñu askan wi tey ñu leen di jiiñ loo xamante nii ñun gisuñu benn benn benn valeur loolu mu wax j'espère que bàyyi nañ fi échantillon boo xamante ni dinañu permettre ñu def contre expertise dinañu permettre également ñu mën a def la balance des deux des deux expertises après ëllëg ñu mën a déduire conséquence mais bu amul on va je vais personnellement porter plainte Contre Ousmane Sonko. Contre, contre Sonko pour l'offense vraiment du, du, du, chef de l'État, ah. du, du, de force forces de défense et de sécurité. léegi euh, Ousmane Sonko Adji Sarr jàpp nañ ko fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai maanaam 16 mai ci chambre criminelle euh, ndax jàppoo ne ndax Sonko saa suñ ko wooloo. nga gis dëkk bi ni muy mel keroog sax président wax nañ ko ko mu ne du Sénégal gese est-ce que jàppoo te ba pare aussi 8 mai bi moom ak Mame Mbaye Niang la une semaine après moom ak euh, moom ak Adji Sarr te même moom sax nee na saa su annoncé nemmeeku tour ay tournée ñu indil ko wàllum justice boo xam ne ci politique la lalu. moom temps du temps wu justice dafa am temps am am procédure bu muy kii donc léegi moom bu dee dëkk bi day yëngu ñun on laisse euh, lay prérogatives ci loxo yi police ak ak gendarmerie yi nga xamante ni ñoom ñoo engagé wu ci aar ñu beneen bi mooy que ni gunge bi ak woote bi moom yaakaaruma ni jar na ko parce que xëy na bi muy jéggi tali di dem euh, foofu ñuy wax Sweet Beauté boobu wootewul man je pense que ni am na loo xam ne li ma ko waxee woon rek am na loo xam nit boo amee dayoo yàlla natoo la ko parce que am na yoo xamante ni dina la dal te buggoo ko yàlla bu la nattoo tur nattoo la dayoo am na yoo xam ne waru la ci conseil bu ma koy jox en tant que peut-être jeune frère en tant que acteur de la vie politique ma koy ñaaxee suñu mbokku politiciens yépp am na loo xamante ni ku ci ne ci ñun war na ko daw war na ko moytu bu fekkee ni ñun ñoo jël ne suñu dund dañ koy jël teg fële jël doon ay homme personnage public war a wax ci lu jëmale askan wi ar kanam nañu xool attitude yi gën ñu doon royukaay. ci ci doxalin quoi. jërëjëf euh, Alassane Binta euh, Samb yow nga bokk ci euh, kuréel gii di idéal coalition républicaine sàmm suñu réew mouvance présidentielle. et membre de la task force républicaine aussi. d' accord léegi sànq yaa ngi wax réalisation président Macky Sall mais tey bëri na ndaw ñu bëri même yaa ngi doon wax yu ndaw ñi bëri na ndaw yoo xam ne amuñu liggéey amuñu diplôme. bëri na sénégalais yoo xam ne aussi jamono ji dañoo sonn njëg yi euh, njëg yi yokk mhm. loolu aussi nemmeeku nañ ko ci ci réew mi mais njëg yu yokk yi conséquence la ci àddina bi fi mu toll c'est c'est c'est dû à la situation géostratégique ci àddina bi fi mu toll guerru Russie Ukraine bi nga xamante ne ay ay dëkk lañ yoo xam ne lu bëri lu jëm ci dundinu pas Sénégal mais àddina bi yëpp dañuy ko fa doon defaree dafa am njeexital tey maa ngi waxtaan ak euh, bërki démb su may partenaires yu fi ñëwoon kenn ki ne par exemple da doon war a changer euh, faaru otom mais bi mu defee commande bi dañ ne ko dina jël par exemple trois mois parce que ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko doon defal dëkk yu xaw a jege Russie la ak Ukraine dëkk boobu nee nañ commande ñu am dafa dafa jéggi dayoo te ressources yi ñu ko doon defaree amatul pour vous dire que ni ndegam foofu la am impact de ay pays frontaliers waxatuma la ak fii nga xamante ni beneen continent la muy Afrique maintenant li ñuy wax rek mooy di ci saisir occasion bi di ci ñaax nit ñi mooy encore li ñu tàmbale woon émission mooy la responsabilité citoyenne am na loo xamante ni mooy ay politique yu ñu nekk fii di ko laal di ko def sur le plan agricole pour ñu mën a atteindre autosuffisance alimentaire il faudrait que ñun ñuy consommer li nga xamante ni moom lañ fi bàyyee loolu bu ñu ko consommer moom mooy am comme effet induit fortification agriculteur bi wala paysan bi donc loolu boole ko politique bi nga xamante ni muy dotation de matériel agricole euh, euh, dotation d'engrais gis nañ programme bi nga xamante ni son excellence le président de la république lancé na ko jël cent milliards démb bërki démb lañ doon def euh, conseil bi ci loolu pour que production bi gën a yokk pour que ñu bañ a dépendre ci kenn loolu dafa nekk lu am solo loo xamante nii bu ko nguur gi defee njeexital bi mooy que population bi am dégg-dégg mu am répondant maanaam li ñu fiy bayee ñu jëlee ko fii jëm koo transformer fii au niveau artisanal ba état bi ak politique agricole ak industrielle bi mu def mu mën a ñëw am parce que gis nañ fi euh, li ñuy tuddee les agropole nga xamante ni am nañ ci cinq yoo xamante tey ëllëg dafay permettre lépp luñ fi bayee fonction ñun ni ñuy dundee pour que ñu mun ko jëfandikoo mu indi loolu mooy indi comme croissance bi ñuy wax intégré parce que tey nee nañ croissance bi c'est c'est c'est c'est extraverti parce que tubaab yi lañ koy jox loolu amul parce que tubaab yi liggéeyuñ fi ñoom nit ñi ñoo fi liggéey te ñoom ñooy nekk les principaux bénéficiaires. d'accord euh, Alassane euh, suñu mujjantal wala bi suñu mujjantal laaj. mooy mhm. président Macky Sall kero dafa wax ne ku bëgg bokk ci élection yi. ñëwal nga dialogue mu mel ni benn euh, forme de chantage la loolu moom ndax waxu kilifa la. non loolooy waxu kilifa parce que élection yi aussi ñoom ñi depuis quatre cinq ans deux mille dix neuf teguñu ci ñaari weer ku nekk di wax waxu troisième mandat moom mu ne moom cëram muy liggéey du ci wax et c'est l'attitude la plus responsable tey. Euh, toll nañ ci foo xamante ni li ñu dese matul at mu woote woowaat leen dialogue bi ñu tolloo ci Covid bi jamono bi metti daf leen woo dialogue ñu waxtaan échangé donc tey fii ñu toll. ku bëgg a bokk. mais ku bëgg a bokk effectivement non waxin la c'est pas dit que c'est conditionnel waxin la dañu ku bëgg a bokk ci élection yi effectivement am na ñoo xam ne bëgguñu bokk ci élection yi ça les concerne pas lii day fay wane ni justement euh, appel boobu ci organisation élection yi la jëm. ak li ci aju. ah mais woote wu ñu euh, par exemple discussion ci lu jëm ci wàllu njëkk yi wala leneen ak leneen donc dañu woote ci lu bëgg jëm ci wàllu élection yi mais mu ne ku bëgg bokk na ñu waxtaan. Mm-hmm. effectivement waxtaan bi nit ñi bu ñu jàppee ni waxtaan lépp dafa nduru ay complot wala comme ni ñu koy waxee deal no waxtaan bi liñ ci jublu mooy bëgg que bu ñuy départ ñëpp d'accord ni mën nañoo départ. c'est régler les les préalables pour que ëllëg mu bañ a am ay contestation parce que dañu toll ci réewum liggéey horizon 2035 la ñu wax pour Sénégal émergent incha allah te am nañ yaakaar ni lii nga xaman ne euh, euh, le le le plan Sénégal émergent mu ngi koy doxal à travers le PAP 1 et le PAP 2 ñu ngi waaj a lancer le PAP 3 incha allah dinañu permettre au moins tey ñu teg ci loxo sénégalais yi loo xamante nii dina wàññi seen njàmbat ak seen tawat ak seen coono. d'accord jërëjëf euh, ñu lay sant baax di la gërëm. Euh, ñoo ko bokk ñoo ko bokk euh, Abdou ñu ngi lay sant di la gërëm di remercier waat encore une fois le le groupe Promo Consulting à travers son président qu'on connaît très bien. et bi ñu mës bokk ndool def benn forum de l'emploi su ma juum lay war na mat ay quinze dix-sept ans wala vingt ans ci ginnaaw mm. yàgg na donc vraiment ñu leen di remercier tey ñu ngi nii di bokk ci ñi nga xamante nii dañoo jël suñu bopp jox ko waa askan wi pour euh, indi solution ci seen dund d'une façon durable. jërëjëf Alassane mbokk yi. bi moom la ñu invité woon tey ci rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi samedi bu jot 15h 16 ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen ngeen jëf jàmm jàmm jërë ngeen ngeen jëf jàmm jàmm jërë ngeen ngeen jëf